lii am am na est-ce pour autant qu'on a perdu notre liste absolument pas foofu nag laay wax ak sénégalais yi ñun loolu moo ñu intéressé l'erreur humaine pees passé na mais qu'on me sorte une seule disposition de la constitution ou de la loi électorale bu wax ni avant le début des di du contrôle juridique que kenn mënul ñëw rectifier une liste y en a pas amul amoon na ci loi yu njëkk ya ñu dindi ko depuis 2001 amul 2021 du moins donc amul la direction générale des élections bu ñu fontoo nit ñi parce que administration su ñu la andilee courrier da nga koy jël amoo droit ne du ma jël courrier bi même sooy instruire après ne ko rejeté na depuis quand l' administration vous amène un courrier nga ne du ma ko laal l'administration par essence qui au service du citoyen citoyen andi courrier nga ne duma ko jël est-ce ce que am nga sañ-sañ tey yow dem trésor wala douane wala impôt douane andi sa benn courrier adressé ko directeur général des douanes ñu ne la duñ ko duñ ko duñ ko jël dañ koy jël même suñ la dul tontu wala même suñ koy rejeté mais dañuy jël courrier bi au nom de quoi commissaire Sarr ne moom du jël du jël courrier bi loolu voie de fait la déni d'administration la et c'est très grave et nous les poursuivrons pour cela parce que c'est très grave ce qu'ils ont fait dem nañu Sénat ñu jël c'est bien le président du Sénat était très gentil mais il n'a qu'à dégager parce que amatul mandat il n'a rien à faire là-bas 2001 ba léegi xam nga 2000 kañ nga toog fii rek euh, ki kooku da lay da leen di sourire nii rek mais lu ko Macky wax mu def ko il n'a qu'à dégager donc loolu moo fi am li ci des suñu liste bi bu dakaar c'est une list qui est recevable et qui devait être reçue c'est ça la vérité administration nag problème la ci Sénégal bu dul préfet di ministre bu dul ministre di DGE mais loolu il faut que ça s'arrête mënul continuer noonu notre liste et recevable et elle sera reçue mais li gën a garaaw cette même DGE a admis et a reçu et a validé les parrainages de Benno Bokk Yaakaar lan la yoon wax yoon nee na warul dépasser temps bu dépasser benn c'est-à-dire du ma ne benn nit sax bu parene waaye benn tànk sax bu débordé dàq nañu list boobu loolu la yoon wax conseil constitutionnel feddali ko ci li ñuy wax jurisprudence Gakou tey ñu ne dañuy jël parrainage Benno Bokk Yaakaar te Benno Bokk Yaakaar dafa déposer lu ëpp loolu waa ñii ñun ñun daal lan moo tax ñu war ñoo yem nag ñun daal ñooy encaisser lu leen neex ñu teg ñu mais ñële lu leen neex ñu def il ils acceptent de recevoir sax moo tax ñoom ñi ngi fële ak avocat yi di bind ay recours man gëwma seen recours yooyu de conseil constitutionnel bi suba nag union des magistrats nañu génn mbër mbër mbër mbër bu ñuy dem di leen noggatu ba di filmer seeni audience euh, di seeni seeni audition du ñu génn wax gis nga réew mi suñu moytuwul administration justice ak Macky Sall ñoo ko nar a taal wax ko ñëpp dégg ko nag parce que doole gi ñuy jaay nit ñi mun nañ ko jënd ëpp ñu ñu ci réew mi de ëpp ñu doole tax xam nañ ci dara fit bi ñuy jaay parce que ñi ngi làqatu ci gannaaw alkaati te nañu fexe nag bis bu ñu ñàkkee nguur nañu am ngor ñun nii ñu ñemee taxaw ak ñoom ñoom ñu yor nguur ñor justice yow lépp ñuy xeex ak ñoom bu fi kenn dem ci sëñ si naan daf maa bëgg a tëj de yëfu yàmbar yooyu amatu fi de ils n'ont qu'à xëy wër ci rajo yi télé yi di saaga nit ñi di wax parce que yaa ngi làqatu ci gannaaw alkaati yaa ngi làqatu ci gannaaw justice yaa ngi làqatu ci gannaaw Macky Sall loolu yëfu buqat la ñun nag li ñuy wax dafa leer te li may wax nii Yewwi ak wàllu la concerné parce que sacrifice yi ñu def alliance bi ñu def ak wàllu c'était pas évident c'était pas évident du tout ndax ku fi nekk rek xam nga ni ñol ñol yu am ci diggante yi xaw naa bëri li nga xam ne mënoon a nekk ay obstacle bëri na waaye bu ñu demee ba def ko dafa fekk dem nañ ba gis ni réew mi moo ñu war a gënal suñu bopp téeméeri yoon te il faut ñu sauver réew mi alliance boobu nag la Macky Sall bi mu ko yéegee defe naa nelawatul lekkatul alliance boobu la foog ni mun na ko gàkkal mun na ko galgal ci lii mu def nii moo tax dama wax ni yeew wi ak wàllu laa waxal ndax Yewwi ak wàllu bu ñu amee seen fulla Macky Sall xajuñu ci moom Benno Bokk Yaakaar xajuñu ci ñoom ñoo xam ne pour ñu génne ñetti nit fii foo ñu génne xaalis bu dul jeex ñun bu ñu taxoon fi woote ndaw yëpp génn bokkuñu sàcc xaalis jënd ay militan génne ay kaar bokkul ak koo xam ne tey soo wootee askan wi doylu la génn uy la ñaar bokkuñu bu ñu amee suñu fulla liste Dakar nañ ko dugalaat waaye bu ñu amee suñu fulla Benno Bokk Yaakaar warul participer ci élection yi cooli li loolu la Benno Bokk Yaakaar dafa warul participer keneen ku mu doonoon fii ci coalition bu Sénégal doo participer ci élection yi pourquoi am Benno gis naa ay soi-disant analyste ak Sénégal ñi ko gën a yàq nag xaw ma société civile la ñuy woot seen bopp xaw ma di wër télé di wax lu dul noonu suñ leen joxee xaalis rek ñu yor seen làmmiñ di mbër-mbëri du ñu wax mukk dëgg ñu naan ay nañu ut solution nañu truc bu dee dañu war a na nañu bàyyi liste dakaar pour mun a justifier ni ñuy bàyyee listu Benno Bokk Yaakaar kon ñi ñu bo bloqué yëpp ci ci parrainage nañu leen bàyyi ñu ñëw la loi c'est la loi ku mu ku mu doon rek dafa war a dal sa kaw ni muy dalee ñëpp. Benno Bokk Yaakaar warul participer ci élection yi su dee nag sénégalais yi li ñu yaakaar ci ñun ak fi ñu bëgg a jëme ak ñun am na fu mu leen yegg li ma leen wax dafa leer gis nga Macky Sall xamul waxtaan xamul waxaale rapport de force la xam xamul leneen li ñu foog lii dina ko arrêté ni mu koy defee la koy defee ba mu jeex joxe na instruction ba conseil constitutionnel nag les soi-disant sage bu ñu jógul jël suñu responsabilité jàmmarloog moom li muy def dina ko def daa di ëldëb assemblée nationale bi daa di préparer troisième mandat loolu moo fi des moo tax li ma wax wàllu Sénégal Yewwi Askan Wi ak l'ensemble du peuple sénégalais parce que nag yaakaar gi peuple bi amoon mooy enfin depuis 2012 élection bu jaar yoon dina fi am et pour la première fois cohabitation dina am Sénégal comme sa risque de se passer en France loolu la Macky Sall bëgg a compromettre loolu du mbirum Ousmane Sonko de du mbirum Cheikh Tidiane Youm du mbirum Massamba ak Mademba mbirum sénégalais yi la sénégalais yi ñoo warul nangu une élection au Sénégal sans la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar foo gagné barki démb avec. Euh, ñoom ñoom ñi ngi am xaw ma lan quatre-vingt mille voix yow nga am cent quatre-vingt mille voix ñu bëgg la ko foqati tey ci caaxaan loolu ñu ñoo ko warul nangu.